waaye noonu la ñuy ñaanale Serigne Cheikh Jëmb Fall ak mbooleem xalifa yi nga xam ne ñu ngi ci biir Sénégal mbokk yi xam ngeen ne euh, daayira bii di Xudaamul Xadim ñu gën koo xam ci Murid International ñoo dellusiwaat fii ci dëkk bu sell bii di Touba indiwaat addi yi nga xam ne baaxoo nañ ko indi fii ci morgu Touba bii waaye ànd ko ak daayira bi nga xam ne mooy Muxaddamatul Xidma ñoom ñi nga xam ne sëriñ bi ñoom la dénk li ëpp lu aju ci jumaa ji ak barab ak morgu bi ak bàqiya waaye ñu feggoog Baye Modou Sène mi nga xam ne mooy jëwrinu morgue bi nga xam ne ñëpp xamees na ko ci ak mbokk mbooleem ñi nga xam ne ay membre euh, Muxaddamatul Xidma lañ liggéey bi nag xam ngeen ne nii rek lañ ko baaxoo defee jamono bu ne ñu ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma di indi li nga xam ne dañ koy aajowoo fii nga xam ne mooy barab bu yi nga xam ne ku ne xam na ne barab la boo xam ne bu jara fonk la ndax jaamub yàlla bu suñu borom teral ba waxtoom jot suñu borom jë moom ko ñu fas yéene koo gunge ci anam yo mucc ayib loolu defe naa ne jullit bu ko dégg da nga ko rafetlu looloo tax daayira bi mi ngi tàllal loxo ñëpp di leen xamal ne dellusiwaat nañ fi incha allah du def lu dul damay gàttal samay kàddu rek jox euh, sëñ Matar mi nga xam ne moo kàddu daayira bi su ko defee mu indi kàddu gi nga xam ne dana tukkee ci daayira Muxaddamatul Xidma su ko defee loolu lépp ñu mën koo taataan bisimilah sëñ Matar. aouzu billahi min achaitan rajim bismillahi rahmani rahim barakati xaadimu rasul ñu ngi nuyu mbooleem waa àdduna bépp di ci ziyaare mbooleem kilifa yi yoonu murit yëpp di wax ci turu sëriñ Fallou Mbacké mi nga xam ne nii moo jiite commission d'organisation bi nga xam ne ni moom la sëñ bi dénk liggéey bii di liggéeyu morgo bi ak euh, Bakhia ñu ngi sant bu baax nag ci jàppale bi ndaxte daayira bi di Xudaamul Xadiim Murit international mbooloo la moo xam ne nii jëm jamono ju ne ñu ngi ñëw ci morgue bi di fi indi ay seen ndimbal di ko jàppalee daayira bi ci liggéey bi nga xam ne nii liggéey bu rëy rëy la boo xam ne nii ñoom ñëpp ñoo ci murid yëpp ñoo ci war a ànd def ko suñu dénk ko ñenn ñu war koo ànd. ba tax na ñu ngi sant yàlla bu baax nag ci ànd boobu lëkkaloo boobu ñu lëkkaloo ñoom ndaxte murid moom fu mu gis lu baax war na caa dugg. ci loxoom ak ci xelam ak ci dooleem kon li ngeen fi indi nii mu néew ak a bari te dootu tey du tey dong danañ ko ànd ak yéen dugal ko ci liggéey Sëñ Tuubaa bi nga xam ne nii mooy liggéeyu morgue bi ak ci bàqana bi di wax ne sant nan bu baax ndaxte jëf ci rëy na te ji rëy na bëgg rëy na te nit moom boo ko jàpp ci liggéeyam rek yaa ko dooleel kon ñu ngi tàllal mbooleem ñëpp loxo ku am ndimbal looy def di daayira defe ko nii rek boo ko indee jébbal ko daayre bi daayira bi dana xool fa mu jëm mu def ko fa ndax loolu mooy ndigal bi ndax day fii day lépp ñëpp te lu nekk nee nga fi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm di sant daayira bi seen taxawaay yàgg ma koo def ñu ak ko ak ñoom yaa may yàlla jàppale yokk leen fay leen bi jeexee Xaadimu Rasuul jërë ngeen jëf. jërëjëf Serigne Matar Kane ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne jotal nga ko. mbooloo mi xam ngeen ne nag liggéey bi euh, ñi ngi ko indi ci turu ki nga xam ne moo nekk ci bopp liggéey bi di sëriñ Ibrahima Diop ñu gën koo xam ci docteur Diop fële ca Mbour waaye ñu ànd kook sëriñ Cheikhou Gueye mi nga xam ne moo nekk Saint-Louis ak soxna bu Diouf mi nga xam ne mooy jëriñu soxna yi ñuy soññaat nag mboolem jëriñu cellule yi nga xam ne moo xam Ndar sëriñ Bilal Sidibé bu dee Ndakaaru Mohamed Ngom bu dee fii ci baay moo Modou seen ak so bu loo nji bu dee fële nga xamante mooy Kaolack soxna Ami Yàdd waaye bu dee Njaareem euh, soxna soxna Anta Dem bu dee defe naa cellule yi mat na waaw kon ñooñu ñooy cellule yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi ñu ngi leen di soññaat bu baax ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy amal fii ci morgue bi ñu gën a takkaat laxasaay yi comme ni ko sëñ Matar waxee gën koo feddali bu baax a baax di ñaan yàlla lépp loo xam ne def nañ ko ci yàlla nañ ko gën a man waaye képp koo xamante dugal nga ci sa ñaqit ñi ngi ñaan suñu borom ful ko te nangul la ko ñu jox ñëpp dig daje di wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.